Euh, mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi écoute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñu diwaan juróomi waxtu ca Medina Cheikh bisimila ci xibaar yi. Adama Ndione. ubbi teg ñetteelu euh, bu conseil collectivité territorial lañ koy daal di nag doore nañuy fexe euh, lëkkaloo ci diggante gox-goxaat yi coopération décentralisée bu ko defee nag anam ba ñuy yore seen bopp ci wàllu finance daal di nag jàppandal war loon ndaje bi dinañ ci daal di jukki nekk njiit la eh, daal ci yeey yàbbi présidente bu au conseil eh, bu au collectivité territoriale Aminata Mbengue Ndiaye eh, dinañu desandi itam ak lu aju ci bésub dëj bi nga xam ne def nañu ko mu nekk nag ab communauté virtuelle bi nga xam ne ñoo ko daal di woote jaare ko nag ci réseau sociaux yi bu ko defee mën na rek fàttaliku ñu seen bàkken daal di nag des ci géej gi ñuy woo nag ñi nga xam ne ñooy autorités yi ñu daal di nag jóg dakkal li association Otra Africa Tounkara euh, daal di nag euh, dugg sóobu ci mbir mi dinañ ci daal di jukki dina bokk ci ponk wax sa xalaat yi ñu daal di euh, fas yéene waxtaane de national googu waaye itam la ñu daal di ñaan ci réew l'Afrique yi ñëpp ñoo xam ne yore nañu nag politique bi aju ci wàllu jëflante beeg bitim réew ñu daal di ci lëkkaloo ngir mbir mi ñu mën koo daal di nag dakkal ubbi teg l'école gi ak rëq-rëq yi ci daldi di aju rawatina ci wàllu nag feebarub mbas mi syndicaliste yi daal di nag gis ne jamono ci jàmp na ngir ñu daal école bi bañ doon barab boo xam ne dafay daal di wàllante feebar bi eh, dinañ ci daal di nag eh, eh, dina ñu desandi itam ba tey ci wàllu mbas moomee ndax daal nañu rek jukki lu war a toll ci juróom-ñeent ci ay cas ñi nga xam ne nag daal dinañu ci fukk ak benn sax ci ay cas ñi nga xam ne wàllante nañ ko bu bees am na ñeenti patients yoo xam ne jamono ji ñu ngi ci réanimation ndax seeni situation moo daal di ti lool ci loole itam ñu daal di xam ne ne amul kenn ku faatu diggante démb ak tey waaye am na juróom-ñetti yoo xam ne transmission communautaire la euh, dinañ ci daal di addu ci biir xibaar yi lay doon euh, fàttali leen yeneen ponk wax sa xalaat yi bokk na ci euh, lu mooy wàllu nag li ñuy jagleel ñuy tukki jëm bitim réew ak kàddu ya ci jiitu réew mi daal di yëkkati ci discours boobu jàpp ne financement bi jëm ci ndaw ñeeg jigéen yi mën na tax mu jàppandal bi ci des mooy coowal accord yi nga xam ne def nañ ko ci wàllu napp gi diggante Sénégal ak Union européenne ñaari milliards yi ñu bara weccee at bu jot fukki junni ci ay tonu euh, jën naka lañ ko daal di jàngatee di des mooy wàllu mbas mi ci njeextaral xabaar yi ñu ubbi ci antenne bi Pape Laye na moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàcce Guinness kii lay Adama Ndione euh, ci kàddu gi ñu daal di dooree xibaar yi ak ubbite li aju ci ñetteelu euh, session ordinaire atum deux mille vingt bu au conseil collectivité territoriale euh, waxtaan yi nag ak dégloonte yi daal di nag aju ci lu lëkkaloo gi war a nag am diggante nag gox goxaat yi ngir fexe ku ci ne mën moom sa bopp ci anam ba collectivité territoriale yi di doxe ci loolu itam daal di wuutale jaar jaar yi mu nekk stratégie. yi ñu bëgg rek euh, teg bu ñu ko lëkkalee ak waa diaspora bi nañuy daal di nag doxee lëkkaloo ak ñoom euh, dina mën a tax commune yi ci bari <laughs> mën rek daal di euh, suqaliku waaye itam fexe ba am tontu ci li nga xam ne nag mooy ñuy tukki daal di nag jëm bitim réew ndax gis nañ ne musiba la ci réew ak ay ndawam Aminata Mbengue Ndiaye mooy président au conseil collectivité territoriale kàddu yi la ci yëkkati ñu déglu ko Sosette Kali daje bi ñu mujjoon daje mu doon sunu waxtaane woon Covid bi li nga xam ni feeñal na ko bu baax a baax ci lu jëm ci wàllu financement ak fiscalité wu collectivité territoriale yi am na collectivité locale yoo nga xam ni seen ressources yi ëpp ñu ngi ko doon jëlee ci seen i marché hebdomadaire am na ñeneen ñoo nga xam ni ci yeneen fonds lañu ko doon jëlee mais ku nekk xam na ni bi Covid bi dikkee am na yu bari ci activité yooyu kenn mëneetu ko ba muy génne ay ressources ñu koy dugal ci collectivité territoriale yi dem nañu sax ba 70 pour cent à peu xam ni mënatuñu woon am benn fonds ni liggéeyee nañu ko xam na ni que euh, la décentralisation est accompagnée de fonds am nañu les fonds de dotation de la décentralisation am nañu le fonds d'équipement des collectivités territoriales ak ay projet mais ñu ni nañ ci yokk tamit yeneen yoo nga xam ni mi ngi jógee ci yeneen réew yi nga xam ne ñu ñoo wër wala ay organisations yi dépendre ci Nations ay organisations yu dépendre ci Union européenne ñu ne yooyu aussi bu ñu leen explorer am na fa ay ressources yoo nga xam ni léeg-léeg nit ñi sax duñu leen xam donc yooyu yëpp nag xam ñoom la ko seqal le ministère des collectivités territoriales nga xam ne am na nouvelle direction de la coopération décentralisée bañ a nekk rek ay coopération yoo nga xam ne ci culture la yem mais tamit bu ñu ko accompagner ak des projets yoo nga xam ne dina permettre à nos jeunes de rester sur place jàppale leen je crois que dina gën a fructifier vraiment li nga xam ne moom la ñuy wut ci lii. Euh, ci loolu la ñuy daal di desandi ak nag euh, association Otra Africa ñoom ñi daal di nag tàbbi ci euh, communauté bi daal di réseaux sociaux yi lépp loo xam ne na xeetu nag dëj la jëme ci euh, fàttaliku ñi seen bakken des ci géej gi rawatina euh, ndaw yi ak ñi di euh, jigéen yi ba ci tout tànk yi ñu daal di woo autorité yi jafe-jafe bi aju ci wàllu mbëkk mi ñu daal di koy nag saafara dakkal ko nu mu gën a rek gaawee te képp koo xam ne nag bàyyi ko ne ci réew buñ koy delloo ñu delloo ko ci réewam Otra Africa daal di si jàkkaaroog taskatu xibaar yi tey jii ci suba njiit la di Souleymane Aliou jàlloo yëkkati na ci kàddoo ko dil mi mars si diggu mbas bi bi àdduna bi yëpp tëjoo dafa am gaal gu génn fii si mbuur dem directement Tenerife def ko ñetti fan te d'habitude juróomi fan lañ ko tàmboon def bi muy génn amul dara dajawul ak dara loo xam ne mën na ko si delloo bi loolu amee jamono jooju dañu waxoon njiit yi ne leen ah li ñu gis nii boo leen si jugulee dina bëri te dina law yàlla def na ni jamono bu ñu toll nii li ñu doon ragal si mois de mars tey firndewu na si lim bu takku gaal yi génn egg Espagne ñu koy méttitlu nag parce que ay junni doomu Afrique particulièrement ay doomu Sénégal ñooy def seen bakkan si xottu gerte di jéggi ndox yi pour yaakaar ni dañu dem wuti li gën et suñu dëkk yi am na lépp bu nekkee doolee pour liggéey la am nañ ko am nañu gàncax am nañu alal ci suuf si donc loolu ñuy wax tënk ko ci ñàkkum liggéey warul mun a nekk justification bi war a tax ñoom ñuy def loolu bés bu nekk ñu ngi gis ay néew yu tefes gi dafa am nag benn coow bu jug ci diggante lim bi ñi faatu ak ñi dem ñuy ñaan njiit yi yore réew mi ñoom ak ñi ñuy liggéeyal ci institution multilatérale yi nañu bàyyi coow bi amu ci solo li am solo mooy ñun ñëpp nañu xool nan la ñu takkoo nekk benn say jéem xool nan la ñu saafaree mbëkk mi xam nañu Espagne France ak Union européenne dañu takku delloo si xale yi dem si mbëkk mi loolu wóor nañu ONG Autre Africa dafa fekk si nangul commission espagnole bi yore wàllu aidu réfugié yi mu tudd SEAD fekk si au commissariat des nations unies bi yolle wàllum réfugié yi fekk si ki ñuy wax le défenseur du peuple espagnol si dàq bi ñu dàq ne bu ñu delloo benn doomu aadama parce que Espagne dafa delloo fukk ak doomu Sénégal ñaari Gambien ak benn Guinée Bissau jële leen Espagne yóbbu leen Nouadhibou si Mauritanie loolu du yoon droit international bi da koy tere si droit ginnaaw ñoom jël nañu ni décision wu dañu delloo ñooñu nañu fexe ñu xam ñooñu ban dëkk la ñu nekk ñu def ci moyens yi war ñu delloo leen seen dëkk mais waruñu leen yóbbu feneen fu seen dëkk Euh, ci la ñuy daal di tàbbi nag fàtte na ci ponk wax sa xalaat bi bokk na ci euh, mbirum mbëkk moomu la njiit mi nag ci discours ba mu daal di def démb ci kanam mu kii di Emmanuel Macron ne daal wàllu ndaw ñi jigéen ñi financement yi bu jëmee ci ñoom mën na tax euh, yi fii man rek wàññeeku waaye itam ku ci ne ak sa valeur ñu daal di koy bàyyi mu daal di koy taxaw te ku ci nekk itam di nga wutaleeg sa morom nga daal di ko ci rek fekki ngir jëflante bi mën rek jàppandal rentrée scolaire bi atum 2020 2021 SUDES ñoom ba léegi tiitaange ci jamono mbas mi amee nañ ko ñoom syndicaliste yi jàpp ne nag war nañu fexe eh, ba matuwaayu matalee ba lekkool bi daal du doon foo xam ne virus ba fa lay daal di nag jaare eh, wasaarowaat ci miir rek réew mi ci laaj yu nag ci wàllu déggoo bi ñu xaati moo nag jàngalekat yi faaw ñu daal di ciy dellu siwaat la Amadou Diaw ne daal di xamle secrétaire général eh, national bu SUDES ñu déglu ko ci jokkoom ak moom Diarra Da Ousmane Diakhaté ci ouverture bi ndax dañoo foog ne vraiment ci contexte pandémie Covid 19 lañ nekk boobu nag lu grave la donc nguur gi war na jël ay motukaay pour que vraiment contamination bañ am à partir de l'école contamination de masse loolu nag il faut que protocole bu au ministère de la santé bind protocole sanitaire ñun lire nañ ko ci suñu xalaat vraiment lu baax la buñ ko appliquer mun na protéger vraiment enseignants yi ak élèves yi ci école ndax il faut que école bañ nekk foyer de contamination bu amee rek école dana am gàllankoor pour fonctionner contamination dana ëpp doole comme ñu ñu assister en ce moment là en Europe en France en Allemagne et cetera et vraiment protocole bi il faut que nguur gi wane que am na volonté de financer ça entièrement pour mettre les gens en sécurité wow nag ba léegi gisuñu ko vraiment ci démarche nguur gi deuxièmement dañu am jaaxare aussi parce que accords yi ñu war si signé ak syndicats yi il faut pas que nguur gi prétexte que vraiment crise économique la ñu nekk vraiment ñu ci def dara mu ñu ko defee mun na indi ay gàllankoor mun na indi ay grève dans le système éducatif gi à ci contexte bi ñu def ko carrément par exemple nous nous pensons que gestion dématérialisée des carrières boobu il faut que ñu mettre en place le dispositif ndax la source de tous les problèmes au niveau de l'enseignement aujourd'hui loolu la tey boobu nag mënu nekk euh, na xaar ba ay dans deux ans dans trois ans déedéet je pense que fu mu nekk nii il faut que yooyu ñu régler ko bu ñu ko régler ça va amener la paix relative dans le système éducatif donc dañu demander un dialogue sincère un dialogue franc un dialogue inclusif pour que vraiment mën a maîtriser la situation au euh, ba tey jaamarloo ak li aju ci wàllu nag euh, mbas mi INEFJA l'école boobu nga xam ne nag mooy euh, daal di tàggat ñi nga xam ne ñoom la seen bët dul gis wala seen gis daal di nag ñàkk neex matuwaay ñu ngi koy jël ñoom itam ngir daal di nag aar ñi nga xam ne ñooy ndongo ya ab jumtuwaay bu am solo ci wàllu cet ak yi ñu daal di koy jébbal barab ba foofa ca diwaanu Thiès Babacar Ndaw ak délégation générale wala nu Bruxelles euh, lii di xeexu mbas mi tax nag ñu gënaat ko yokk si lu bit euh, l'école bi ngir gën a aar xale yi inspecteur Sakura Gueye mooy directeur bu INEFJA bu Thiès. léegi nag depuis le 25 juin ndax boobu bu ñu fàttalikoo reprise des cours yi maanaam jàngaat bi xale yi doon def classe examen rek la concerné woon moo tax boobu ñoom la ñu demoon jox école yëpp seen ay loo école élémentaire yi def nañ ko Ndar def nañ ko Ziguinchor def nañ ko Thiès def nañ ko def nañ ko feneen xale yi tout tànk yi ñoom ñi nga xamante ne que ñëwuñu woon bokk ci mbir moom ci ubbite boobu commencé nañu ci la ñu ne nag léegi li ñu leen dencaloon ñoom seen wàll nañu leen génnal itam seen wàll ñoom ñu jox leen ko di ci gërëm di ci sant délégué général Wallonie Bruxelles parce que mënoon na joxe ba pare toog mais dafa joxe ba pare dafa ñëw lu toll si juróom-ñaari daara ñu jox leen juróom benn yu Thiès ak benn bu Ziguinchor jàpp na ne tey jii matuwaay yëpp war nañ ko jël fii si Thiès nag école maternelle bu Kër Sayib Ndoye la ñu tànn directeur bi di ñëwaat ci taxawaayub aar xale yi def suñu kéem kattan ndaxte yàgg nañ leen a euh, xirtal ci set ci moytu comme jàngoro ji ñëw na dañuy gën a doole ñaax xale yi ca lañu nekk woon ñu gën a ñëpp respecté loolu li nga xamante ji gouvernement teg na ko ak les équipes sur place ñu gën leen a leen a surveiller pour le respect euh, scrupuleux par exemple de ces mesures barrières waa délégation jii fas yéene gunge projet SHC bu INEFJA ngir fexe tey jii ba xale yi nga xam ne euh, seen bët dafa sëgg ñu gën leen jox seen aq tey jii ñu mën a jàng mënal seen bopp waaye loolu nag dañ koy def ngir sàmm leen ñu am seen wér-gi-yaram Babacar Ndaw Thiès su defa Babacar ba tey ci wàllu euh, fexe jël matuwaay jàmbar la Covid 19 bi si ubbi teg bi Gandong nekk ci ab commune ba nekk ci Saint-Louis euh, li aju ci wàllu woowee ñu ngay daal di sàmmanteeg moom ci ubbi teg l'école gi nekkoon na sax occasion ci maire bi euh, bu commune ba ngir mu daal di nag addu jëme ci parents yi ñu daal di gunge seeni nag doom rawatina ci wàllu cet ak lañuy ñuy daal di jëfandikoo ci wàllu ñam yëpp daal ngir mucc ci feebar bi moom Khoudia mbay la mu daal di nag euh, jàpp sax mooy dañoo war a fexe leçon morale ak éducation civique ñu gën koo fasal ci lekkool bi ndax feebaru mbas mi Saint-Louis iften ginnaaw école yi nga xamee ni jot nañ leen setal te désinfecté leen laata lubite école bi foofu la ca commune bu Gandon. bi ñu génnee ci examen yi yàggul torop te booba jëloon nañu ay disposition pour nettoyer école yi dindi ñax mi ba pare désinfecté. lii di protocole sanitaire bi itam ñeel wàllum xeex mbas mi di Covid 19 daanaka jot nañ ko faa respecté bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Khoudia Mbaye mi nga xam ni moo jiite boobule commune. fas yéene wàccoo ak li nga xam ne moom la docteur yi tudde mesure barrière maanaam def ay masque loolu tamit. non seulement dañ ko joxe woon ca ba joxe jotee. muy commune bu nga xamee ni jot na ndimbal bi bàyyi ko ci ay partenaires jëmale ko nag ci ñi nga xamee ni ñooy élèves yi ci lu jëm ci mbirum ay fourniture scolaire. fourniture scolaire yooyu. ñun dañ koy joxe avant ñuy ubbi pour que loolu ñu tudde ubbi tey jàng tey mën a xew ci sunu commune. donc ñu ngi ko doon séddale école yi di ñëw di jël si maternelle yi la ñu mujjee te defal nañ leen ko. maire bi jot itam woote jëmale ci ñi nga xam ne nii ñooy jur ndongo yi ngir ñu gën leen bàyyi xel jamono ji lee. ni leen nañu gunge xale yi nañu seet seen colka seen cet seen lekk ndax yooyu dafa am solo te nañu jàppalante te yaatal ñi nga xam ni ñooy jàngalekat yi ndax am na ay dëkk yu nga xam ne. jàngalekat yi foofu la ñuy dem obligé dëkk parce que dafa sore. ci noonee itam mu daal di fësal bëgg-bëggum ngir ñu soppi la ñuy jàngal ndongo yi ci biir école yi. di sensibiliser waale delloo si leçon de morale ak éducation civique dafay baax pour que xale yi xamaat lan mooy fi ñu war a taxaw ci ay valeur lan mooy li ëpp solo ci àddina parce que dama jàpp ne man li ëpp solo ci àddina mooy yar ak nangoo liggéey.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 Sud FM. lu war a toll ci ñeenti nit ñi nga xam ne nag ay patient la ñu ngi jamono ji ca réanimation ci barabu fajukaay yi amul kenn nag ku faatu diggante démb ak tey muy situation feebar bi aju nag ci mbas mi waaye am na fukk ak benn eh, ci ay cas yu bees yu ñu daal nag eh, wàññ ne wàllante daal di na cee rek am eh, ñetti di cas contact juróom-ñetti di transmission communautaire situation bés bi noonu la daal di nag fëse ni ñu koy amale bés bés bu yàlla euh, sàkk ñàkkum ndox mi ca commune bu Sibassor la ñu jëm foofu autorité yi ñu ngay daal di dalal xelu askan wa euh, situation boobu nag daanaka euh, dafa tàmbalee métti ba tax ñu jàpp ne bu ñu ko liggéeyee askan wa dina nañ ko daal di nag rafetlu ci digga dogal yi nga xam ne nag ministère intérieur daan na koy jox gouverneur bu Kaolack bëgg na ñu daal di fexe jokkaloo ak directeur bu OFOR bu ko defee ñu daal koy saafara nu mu gën gaawee ngir xaarandi. loolu nag tax na ay camion citerne yu ñuy daal di yóbbul askan wa ngir ñu mën a am ndox mu sell mba ji jëfandikoo Kaolack Adja Awa Thiaw askan wi dëkkee ci commune bu Sibassor digganteem ak Kaolack toll ci fukki kilomètre day ay fan a ngi nii ñi ngi dund ñàkkum ndox moo xamee ne si mu tar la forage ba nga xamee ne si moom moo doon nàndal gox ba nag dafa jékki-jékki daal di wex xàtt ak xorom ndox mi kenn mënatu koo jëfandikoo Mamadou Thiaré chef service régional bu hydraulique di wax li waral loolu. forage li nga xam ne moom la war a dund passé wu fanweeri at forage bu amee fanweeri at rek a remplacer na yu bëri yoo xam ne commencé nañ ko di remplacer yegg see mooy lan dafa toj ci biir ndoxu géej gi di ñëw di dugg ci biir mu xorom loolu nag bu amee da nga gis des fois dañuy pomper demande bi bu bëree rek nga gis ndoxu xorom di ñëw loolu moo koy andi. noonu nag le gouverneur bu diwaan bu Kaolack daal di saisir ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk autorité yi moo tax ni ki démb ba tey am na ay camion citerne yoo xamee ne si office des forages ruraux yónnee na ko ngir kat mu mën a nàndal askan wi dëkkee Sibassor ba Badara Mbengue gouverneur bu diwaan bu Kaolack. bi loolu amee. monsieur le ministre de l'intérieur jox ma instruction ak monsieur le ministre de l'eau et de mais rapidement nañ trouver une solution ci laa saisir le directeur général de OFOR bërki démb laa leen saisir tey jii ñu jox ñu euh, trois camions citerne boole ko ak ay chauffeur bu ko defee camions yooyu saa wuñ xëye rek danañu dem rooti fi ñu war a rooti pour jox waa Sibassor ndox mooy rek euh, peut-être dëfal tuuti population yi notamment les jeunes parce que problème bi état bi xam na ko et que solution yi commencé na bientôt OFOR engagé wu na pour ñu tabaxal leen forage bu bees li nga wax léegi ne est-ce que camions yi ñu ngi fi ba boobu jarul sa xalaat camions yi tant que Sibassor amul ndox camions yi danañ fi nekk pour di leen jox ndox kooku moom bëgg naa dalal xelu waa Sibassor parce que dëkk bu yem ni Sibassor mënuñ ko admettre mu xëy population dëpp seen i paan amuñ ndox loolu mënuñ ko admettre. maire bu gox ba di Djibi Kalidou Niang jël na engagement ngir joxe carburant bu doy waaye itam yore personnel bi nga xamee ne si moom lañ fa yónnee. man mun naa engagé gasoil bi Flexo moo yore ndox mi parce que moom la ñu doon fay facture moom moo war a yore ndox mi ñooñu trois chauffeurs mun naa leen dalal sama kër li ma lekk ñu lekk li ma naan ñu naan Sibassor fas yéene woon nag def seen doxum ñaxtu ngir ñu dégg leen jamono jii day ñi ngi noyyiwaat bu baax Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Ah, doo rek euh, nag euh, président fédération sénégalaise bu football Augustin Senghor moom mi bëgg rek euh, wuutu président CAF moom Augustin Senghor nekk candidat ci nag poste googule déposé na sax candidature am ngir daal di wuutu doomu malgache bi di Ahmad Ahmad El Hadj Malick maître Augustin Senghor moom samp na dem nag ci langue gi ngir rek jiite confédération africaine bu football moo tax sax mu déposé nag dossier wu candidature am confédération bu football ba nekk fële ci Égypte maître Augustin Senghor fi mu toll nii jot na sax waxtaan ak ñenn ñoo xam ne kat candidat lañ ku ci mel ni kii di Jacques Anouma nekk doomu Côte d'Ivoire fi mu toll nii bëgg-bëgg maître Augustin Senghor lenn rek la fexe nag ba candidature mouvement sportif daal di koy porté muy xaar nag aval officiel lu njiitu réew mi kii di na sax nag soutien wu yenn fédération yi nag

Ah, ñu jeexale ak judo open bu ndakaaru fukk ak ñeent jàpp fukk ak juróom ci weeru no ci weeru novembre te stade Marius Ndiaye lañ koy daal nag amalee fukk ak juróom ci ay réew daal dinañuy dëggal ne dinañ bokk nag ci yëf yi président comité organisation bi di Idrissa Diop ñu déglu ko ci El Hadji Malick Ndiaye. waaw en c'est que open bi en c'est inscrit ci euh, li ñuy wax euh, euh, circuit boo xam ne nit ñi ci lañuy amee. ay poñ pour euh, participer euh, Jeux olympiques Tokyo léegi euh, loolu benn la ñaar maanaam ci plan yi maanaam ci calendrier wu fédération internationale de judo ak union africaine de judo date bi daf ci nekk maanaam chaque année Dakar war na organiser open mais comme dafa amoon pandémie ak pandémie bi maanaam Covid bi dañ doon xalaat nekk ci loolu est-ce que dinañ am capacité organiser ko mais yàlla def na nekk xaw na wàññeeku fii ci Afrique donc euh, vraiment ñu ngi sant yàlla donc on a euh, mujjee nañu finalement ak autorités yi euh, am ndogol yi nga xam ne moo ñu permettre ñu organiser. waaw lan moo nekk chance su Sénégal ci Openu Dakar bi. waaw ñu moom ni ma ko doon waxee sànq ci nasaraan rek jóge nañ ci Open Yaoundé semaine passée ak ay ak ay médailles donc dinañu defaat le maximum parce que ñi engagé bëri nañu ñu ngi ci euh, ñaar fukk ak ñett ak juróom-ñett euh, athlètes ñu engagé euh, ñu athlètes yu bëri yi participé yi jógee ci ñetti continent yi ñu ngi fi maximum ñu ngi soixante dix incha allah daal bëgg nañu au moins Sénégal am ci fukk fukk yi ci ci ci ci jongante yi ñu nar a am ci Dakar boo paree nag. yokk suñu suñu suñu chance participer Jeux olympiques yi parce que boo jëlee ndam boo jëlee mm, médaille d'or sa sa poñ day yokk maanaam day yokku ci ranking mondial bi nga xam ne moo lay moo lay permettre bu la dese woon ay poñ pour nga mën a jege gën a a jege pour participer Jeux olympiques am nañ kenn koo xam ne presque qualifié na mooy Mbacim Ndiaye ñëpp xam nañ ko donc ñeneen ñi aussi dinañ góorgóorlu pour jéem a euh, amaat yeneen poñ pour mën a am ay ay mën a participer Jeux olympiques Tokyo Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché, et bien plus encore. Ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre Wax sa xalaat 88 628 98 98 day national bi nga xam na nag def nañ ko ci mémoire yi ñuy daal di eh, des si géej gi waaye itam eh, discours ba seen njiit réew mi daal di def ci wàllu financement ya accord de pêche yi union européenne ak Sénégal ak coow la ca daal di am ak mbas mi ki jël auditeur bu jiitu ci ligne bi allo. salaamaaleykum. waaw ah, waaleykum salaam. Birama. waaw. Mar Sow la. ñu ngi lay nuyu Omar. waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli si di rafetlu liggéey bi. Hmm. Euh, di vraiment di gërëm Sénégal ñëpp di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm yàlla jële fii mbas mi quoi. li may njëkkee mooy vraiment waxu son excellence El Hadj Macky Sall démb devant son homologue français. xam nga ñu doon tiiñal Macky Sall e, kii da ngaa war da ngaa war a da ngaa a wax da ngaa war a wax defe naa ah, dégg nañ démb waxam xam nga wax euh, bu jotee dañ ko war a wax wax buñ ko waxee te te jotul wax boobu kii du am valeur mais mu dem ba France Macky Emmanuel Macron pour mu ko waxee woon laa la moom tam en tant que chef d'état ñëpp autorités yi lépp toog mu wax ko foofu devant surtout tout le monde entier vraiment man loolu dama koy rafetlu xam nga lii mooy carrément c'est voici un président qui est cent pour cent musulman cent pour cent musulman laa la wax ci see kooku moom képp lépp lu lu laaj diine sala diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj na président Macky Sall ñi doon kii ne Macky Sall fee la bokk fee la kii nangam nangam loolu yëpp defe naa loolu defe naa ci affaire wax ji leer nañ loolu daal man daal dama koy ñaanal yàlla defal ko jàmm sa ko ci seytaan bi may jeexalee mooy mooy affaire kii bi mbëkk mi mbëkk mi wax dëgg yàlla mbëkk mi mbëkk mi métti na trop na nit ñi nañ delloo seen bopp si yàlla nit ñi delloo seen bopp si yàlla tuuti xam nga ab wërsëg kenn du mënu ko forcer vraiment nañu gën a góorgóorlu gëm suñu bopp gëm suñu réew Sénégal mën a dem kanam vraiment di rafetlu liggéey le professeur Moussa Baldé ministre de l'agriculture ci conseil départemental bu Kolda jërëjëf. Euh, Pape Laye ñu jël keneen ci ligne bi allo 88 628 98 98 bitim réew 33 841 22 33 allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi. Saas Adama Ndione. waaw. El Hadj Saas mu de moo lay nuyu Saas tamit xombal gaal. Saas ñu ngi lay fayee quoi xombal. nuyu Papa Laay moom la ñu ko tënkee di ziar nag am di jàmm yi soppeek am di jàmm yëpp. Mhm. Saas. waaw. wax nañu ne ah Omar Sow yàlla na di cee laal rek bëgg naa cee ndax man li loolu damaa mhm. ndax li nga xam ne mooy laal li gën di mbindeef. Mhm. ah mooy li ko wax lépp damaa naqari. waaye dañ njiitum réew bi démb li mu wax it am na solo kon loolu mooy tontu du wees oustaz waaw yonent bi da dafa def ay jëwriñ ay jëwriñam ñu ne ci àdduna ba ne ci réew mi damaa bëgg nag waa réew mi ku laaj ci jëwriñ ci bi du wax ci ñu di dégg bëccëg ñu leen laajte kenn du wax nañu wax nag ci ñi nga xam ni ñoo fi toogal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. bu leen laajte nañu jóg wax ci ñoom la ca gën ca dolleeku mooy hmm. oustaz waaw yow lay déglu di wax ne li nga xam ne vraiment moo nekk ci réew mi rek métti ñëpp. Hmm. tey nag ñu ñu décrété ko bis boo xam ne ah bisub dëj la. Hmm. suñuy doom ñu bokk ci Adama. Hmm. dem ni ci Mali Faro. lenn daal laa bëgg xamal waa Sénégal. waay Oustaz Olof Ndiaye li a dee. ak ci a ne ay moo ñooy dem ay moo ñu bari ay dem. moo di tey ñoo yóbbu xale yi ñu dee ci géej gi xale yi la ñu wuti bitim réew am na ci réew mi ko nanguwul a def fii Espagne ku fa dem yaa ngi ca ya Sénégal àll baa ngi ne yàmbalan ñu mën cee liggéey mais danoo lànk duñu ko fi liggéeyee ñun daal li li ñu bëgg a def te ñu nekk mooy danoo bëgg dem danoo bëgg a tuxu may ñaan ak yàlla tabaraka wa taala moom yàlla na leen dëpp président Macky Sall financement yi muy wax financement amoon na ci Abdoulaye Wade boo leen joxee dañuy dem Abdoulaye Wade defoon na fi ay financement jox leen ko mais danoo paas dem mu daal si li ci mooy. Mhm. nañu ñaan yàlla yàlla dëpp leen ñu toog. Ah. jërëjëf ak eh, Pape Laye mu ñuy def si ni fii lañ koy yemalee ndax nag eh, yi jàll moo xaw rek daal di bari boole ko nag Sud Éducation buñ ca noppee 18 dafay jot ñu daal di dikk ak yéen ci xibaar yi ci yaatal kàllaamay tubaab ak Marie Rosalie Ndiaye xibaaru guddi gi ñu gën koo yaatal jaajëfal ko moom Pape Laye Dieye mi fari woon ci sottandikukaay bi mu mucc biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak man ak fekkee tal yàlla nañ ko yàlla defal jërëjëf. Mali Mauritanie Sénégal ak Guinée lëkkaloo nañu ci biir organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ci taxawaay ci ay programme yu am solo ngir jëriñoo lii di fleuve Sénégal te it saafara ay soxla yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk te mu jëm ci développement ci ay infrastructure jumtukaay yuy tax ñu mën a am ndox OMVS taxaw ci jàppale population yi ci am ndox mu sell waaye tamit lii di mbéyum roose mi ñëpp mën a am dund gu doy sëkk ak energie boo xam ne day yomb ci marché bi ak yeneen ak yeneen muy lu ngeen di yëg ci seen dundin bés bu yàlla sàkk OMVS ngir lëkkaloo ak suqaliku moo leen doon may seen émission wax sa xalaat Dakar